Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, nous les Monsieur le Haut Conseil au cadre de l'État yi ngeen àndal yëpp di nuyu monsieur madame le ministre tey def naa parole yu may jël du bari à Tivaouane en 2012 dañuy lakk maire bi état civil bi lakk les civil bi laké on avait demandé pour le premier ñu décret parce que normalement décret présidentiel moko wara war wat d'après les textes on a fait la lettre depuis l'année dernière man dès que ma suis maire la première chose que j'ai faite c'est de faire la lettre et de l'adresser au ministère de la justice depuis boobu on a fait la ngi xaar décret bi té décret bi dañu bëggoon rek loo leen mën a def rek ngeen dimbali ñu pour que ñu am décret bi pour mën a reconstituer le l' état civil bi nga xam ne moo lakkoon au niveau de de Tivaouane bari na luñ ci récupéré mais au moins il faut que mu am décret pour que ñu mën a confirmer def li ñu war def yëpp si biir état civil bi. madame la ministre beneen bi mooy la prison de Tivaouane la prison actuellement dañuy demandé ñu déplacer ko parce que la prison mi ngi nekk si diggu dëkk bi elle est entourée de maisons c'est-à-dire ay këru ko bu mu fess. par exemple ñu bëgg pour ñu délocaliser ko yóbbu ko ci benen secteur le terrain est déjà disponible mën nañ leen ko envoyer on a déjà délibéré pour espace bu mel noonu dafa benen espace bo xamé ni même prisonniers yi nañ leen utiliser pour des champs euh, sur les champs pour que ñom ñu nous a donc on a fait la délibération d'accord dañuy xaar rek bu fekkee ne que nañ leen envoyer lettre bi ak espace bi ñu jox en dehors un peu de la ville pour mu bañ a parce que la population yi dañu bëgg mettre en sécurité parce que actuellement prisonniers yi dañu bari ba ci biir euh, hôpital euh, kii bi prison bi ñaari points yi rek la bëggoon wax di remercier di leen féliciter je vous remercie merci